moom lay wax jaloo national ñépp waxtaan pencoo te xalaat ci lépp loo xam ni yitteel na askanu Sénégal nee na loolu mi ngi ci sa barke maam ak sa barke nga ñaan ba yàlla defal ko ci ndam xol yépp tàppe bennoo boobu nga xam ni mooy teewu ren bi

ku taal sa télévision di nga gis ci yeneen réew yi réew ñu ëpp doole foofu ay tsunami ay ouragan ay ngelaw yuy wal di yàq lu bëri ay géej yuy yëkkatu di indi ay musiba ay ndox mu bëri ay taw yu bëri yu ànd ak loraange wala ñàkk taw yu indi loraange loolu nag borom xam-xam yi d'accord nga ñu ni dëkk bu bara garab suñu borom na def taw bi am fa te mu doon aw taw jàmm moo tax muy ñaan ci sa barke maam ci sa barke ku ne na fonk jëmbat garab Sénégal population bi fi mu toll nii ñu xayma bi ñu mujj am 16 millions d'habitants 16 millions d'habitants fukki millions ak juróom benn million nit Masha'allah, population bi dafay Yoko. 1960 suñu population 3 millions ak lu teg tout le woon Sénégal yëpp laa 3 millions d'habitants 1960 En l'an 2019 16 millions d'habitants waaw bu genn wàll boobu yëpp ku ne jëmbatoon 8 millions de lay même vous jëlee genn wàll boobu xaajaat ko. 4 millions garab par at ñun ñi fi teew ku ne mu garab suuf xam ko bu ñëwaatee mu jëmbat bu yàggee dënk bi naat moo tax bëgg na ñu jàppale ko ci loolu beneen bi mu bëgg ñu jàppale ko sëriñ bi mooy mbalit mi ak sànde yi bare nañ ci suñu dëkk ci suñuy dëkk booy egg si Sénégal li lay njëkk mooy plastique ak saleté bu baax président wax na ni